yaa Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides ni mu ko baaxoo defee ci weeru koor yi yëpp ginnaaw bi ñu teeloo njàng mi ci tàkkusaan gi bañ ñaan koo na fii ci résidence Khadim Rasoul ngir ñëw ci grande mosquée bu Touba ci àllarba ji dëppoo fukki fan ak juróom-ñett ci kooru 1443 ginnaaw gàddaay gi dëppoo woon nag le avril ci liggéey bu am solo bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moom lañ fiy amal ci biir weeru koor gi sëriñ bi bi mu ñëw ànd naag jëwrinam sëriñ Moussa Nawel ak yeneen kilifa bi ñu agsee kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey daayira Muxaddamatul Xidma dalal nañ sëriñ bi ziyaare ko présente ko mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi noonu it lañ ko leeralee mbooleem liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di amal ci jumaa ji même bu dul weeru koor mu jëm ci cetal barab bi saa su ne ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi diglee loolee nag ñu ànd ceeg soxna yu pasteefu yoo xam ne lépp leeral lañ ko sëriñ bi leeralaale ko ndogu yi nga xam ne bés bu yàlla sàkk moom la ñuy mboolem jullit yi nga xam ne ñooy ñëw fii ci grande mosquée bu Touba ngir dogee fi seen koor gi fan yi ñu génn bis bi nga xam ne moom la waa daayira mu xaddamatul xidma amaloon mu nekkoon ak tàggatu gu ñu doon jagleel imaam yi xutbakat yi noddkat yi loole yépp leeral lañ ko sëriñ bi ginnaaw bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou xalif général des mourides santaat na bu baax a baax daayira mu xaddamatul xidma ci Pastef gi taxawaay bi nga amal ci grande mosquée bu Touba. feddaliwaat ak kóoluteem ci ñoom waaye daal leen di ñaanal. ci jumaa ji ci weeru koor gi mu jëm ci wàllu ndogu yi mooy lii ngay gis euh, am na yeneen nag yu ci dolli mooy diggante tàggat yi ñuy tàggat climat yi ak noddkat yi ak ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàll googu moom it def nañ ci ay yoon ci biir koor gi euh, wàllum cet gi sa yàqu ci dara ndax soxla yi nga gis kenn ku nekk ak kuréel la jiite ñaari fan yëpp bés bu nekk am na ñu war si ñu koy jiite ñoom ñëpp ñu ngi di dox teewee liggéey bi euh, mboolem liggéey yi nga xam ne sëriñ bi joxoon nañu ko itam liggéey bi yàqu ci loola dara ñu ngi sàmmante moom yëpp di ko defee ni ñu yaakaar ne noonu ñu liggéey di ñaan nag nga yàgg fi lool te te te te mu ànd ak wér di la xamal ne daal dara taxaw lépp ñu ngi yi ak ndogo yi ak cet gi ñoom rawati nañ ci xam dañoo gën a sàmmanteeg ñoom teewul sax bunt bu ne bu ñu noppee bu ñu nii ñi doon teg bu ñu teggee rek ba dañu natt de danañ ko raxas ba mu set wecc waaye loolu nag sàmm teewul bis bu yàlla sàkk dana am ñuy xëy si buñ xëyee bariwaat liggéey bi ñu koy toll nañ ñu ñeenti téeméeri bi juróomi lépp إله غيره يا من أتاني دون شر خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون شر خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون شر خيره صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واذكر في المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدر يا من قبلت بسماك بدري يلا وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالباري والآل وصحبي بلا انتهاء وكن معيسني بحق العزبلة وانشر علينا بركات البسملة وسل يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مدير